xanux moom moo di Idris bun yard doomu yard bun Mahlaïl doomu Mahlaïl bun Qaynan doomu Qaynan bun Anush doomu Anush bun Shiisa doomu Shiisa bun Adama doomu Adama abil basar bàyyi min def alayhi salaam yàlla jàmm nekk si moom nu ñu ñëwee maamam ba ci Adama laam ak kooku matu salaxa ko jur kooku xanux ko mooy Idris kooku yard kooku Mahlaïl kooku Qaynan kooku Anush kooku Shiisa kooku Adama moo ko jur Adama moom mooy bàyyi min def yi kooku yàllaa ko bindal boppam ñooñu ñooy maam yi yonent yàlla Nuux kaana nekkoon na mawlidu wu juddoom baax na wafaati aadama gannaaw faatu aadama bi mi ati sana si téeméeri at wa sittin wa isriina sanatan ak ñaar fukki at ak juróom benn aadama faatu na ba am cent vingt six ans Nuux door door juddu ci wax ci yenn wax fi ma zakaroo ci la tudd na ko ibnu jarir ibnu jarir la tudd wa xeyru ak kudul moom ah nee nañ aadama faatu na ba am cent vingt six ans Nuux dooru judd wala taarix ahlu kitaab boo jàppee ci histoire ahlu kitaab al mutaxaddima ba jiitu ñoom jàngaloo nañ léegi euh, ati adama yi yakun dana nekk benn mawlid nuux diggante juddug nuux moo ci aadama ak dégg aadama mais atun wa sittun téeméer ak juróom benn waar boona sana ak ñeent fukki at boo jàppee ci taarix ahlu kitaab yi aadama génn na àdduna ba am cent quarante six nuux door a waaye ci lu ibnu jarir wax Adama génn àdduna ba am cent vingt six ans noo door a jut ñii ne cent quarante six ans yaa de wute la lu mën a xew daal wa kaana nekkoon na bay numaa seen fukki maas diggante Adama ak noowu fukki maas dox na ci boo xoolee wax jooju nag dafay mel ni ñaari wax yi Adama dafa génn Adama am cent nangam at noo judd ñaari wax yëpp dafay dàqu. وقال خولي تي ني سين وكان نيكون بينما سين ديغنت عشر قرون فوكي ماس كما قالكم نو الحافظ ابو حاتم ابن حبان في صحيح سيرم بوير بو ابن حبان ان في صحيحم حدثنا وقتان محمد بن عمرو بن يوسف حدثنا وقتان محمد بن عبد الملك بن زيد جو جويه حدثنا وقتان ابو توبه حدثنا وقتان معاويه بن سلام انا اخي مجري مبوكم زيد بن سلام sami'tu dégg naa abu salaam ne sami'tu dégg naa abu umaamata ne ana rajulan ne ab góor xaala wax ne yaa rasulallah yonent yàlla bi annabiyu ndax yonentu la annabiyu ndax yonentu kaan la nekkoon aadama aadama benn ay benn saxaaba dafa laaj yonentu bi ne ko ndax aadama yonentu la woon xaala yonentu bi ne ko naam waaw mukallamun bu ñuy waxyu yonentu bu ñuy waxyu la woon xaala mu ne fa kam kaana ñaata la nekkoon bayna diggante moo bayna nuux ak diggante mu ne ko diggante aadama ak noo ñaata at moo ci dox xaala mu ne ko asharatu qurunin fukki maas fukki maas dox na seen diggante kon yonentu sallallahu alayhi wasallam moo wane ne diggante aadama ak noo fukki maas dox na ci qultu wax naa waxaagaari ala charte muslim mooy hadis bi mu ngi tegu ci charte muslim maanaam ko hadis bu wér la nii muslim di génnee hadis noonu yoon woowu la wala mu yuxruju waaye génnewut ko xadis bi muslim génnewut ko mais charte yi mu sukkandiku pour génne xadis xadis bi fa la fa la tabax waaye génnewu ko wa fi saxiil buxaari bu dee ci saxiil buxaari xan ibn abbas jëlee nañ ci ibn abbas ne xaala ne kaana nekk na benn aadama diggante aadama war nu ak nu asratu qurunin fukki maas kulluhum ñoom ñëpp al islaami ay jullit lañ ibn abbas nettal nañ xadis boo xam ne ci moom lañ ko jëlee mu ngi ci mu ne diggante aadama ak nu fukki maas dox na ci ñoom ñëpp ay jullit lañu woon xadis bi ibnu xibbaan andi kooku ci charte muslim la daf ne fukki maas rek moo na dox diggante aadama ak nu waaye leerlu ne ay jullit lañ fii nag mu leeral ne ay jullit lañ kon su ko defee kon diggante aadama ak nu ñaata at moo for dox su fekkee maas mooy téeméeri at fukki maas mooy junni at kon diggante aadama ak nu junni at la bu fekkee maas galam ci nam mooy ay nit rek aw nit kon diggante aadama ak nu ay junne junne at la parce que nitu nuux yi liñ naan liñ naan la euh, dafa daan yàgg dañ naan gudd fan maanaam xeet njëkk dañ naan gudd fan bu fekkee diggante aadama ak nu fukki maas moo ci dox te maas mooy téeméeri at kon junne at moo dox seen diggante wuteeg lañ njëkk wax su fekkee <coughs> lañ na mu ci maas mooy aw aw aw nit rek aw nit rek comme ñu ne saxaaba yi maas lañ taabine yi maas lañ ah, danañ jàpp ne kon war na ëpp ay junne junne at ndax ñoom dañu naan gudd fan moo tax mu ne fen kaan nekk na al muraad lañ ne bil xarni ci maas mi at sana téeméeri moom la ñu dégg inda kasirin ci ñu bëri mel naa si nit ñi fa benn maa ko nekk seen diggante alfu sanatin junne at la maxaala amul benn pexe su fekkee maas mooy téeméeri at diggante aadama ak nu fukki maas fa dox kon junne at moo fa dox laakin waaye nag laa yéen fii du dàq andee ko mu nekk ak sara du ëpp loolu باعتبار ما قيل بو خلام نا خا مي تنك بي تي ابن عباس ابن عباس بالاسلام تي اسلام ابن عباس دافنا ديغنت ادم اك نو فكي ماس يو خا مي نيوم نيب تي الاسلام لا نيك مانام نيوم نيب اي جولي لا مو فا دوخ سو جابي لولو دا ني جاب نم من نام لوخ ديغنت نو اك ادم اوب نو فكي ماس واي دال امنا فكي ماس يو خا مي نيوم اي جولي لا نيو نيك تي ديغنت بي من نام ديغنت بي لا فا دوخ اوب نو فكي ماس waaye li mën a xew ba xew mooy fukki maas yoo xam ne lépp ñoom ñëpp ay julli lañ moom am na fa dégg nga ngir ngir xar yakun amaana mu nekk benn maas seen diggante xurun uxar yeneen maas mu axira yu mujj lam yakunu nekku ñoon al islaam ci lislaam man naa mu am yeneen maas yoo xam ne ñoom nekku ñoon ci lislaam waaye li leer ba leer moom mooy fukki maas yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi woon ci lislaam dox na ci diggante aadama ak noonu لكن وانا حديث ابي امام حديث ابي امام بوم خن ابن حبان ان نكو جان كوليغي يدل داي تك على حصر تي تك في عشر القرون تي فك ماس اما حديث ابو امامة يوم لا جون تي ديغنت ارما نو نياتا ديستانس مو فدوخ من فك ماس لول دا فيما نكون فك ماس رك فدوخ حديث ابن وزادنا يوكنا نيو ابن عباس ابن عباس انهم نيو كلهم نيو نيب كانوا نك يعني الاسلام جي الاسلام بو جابي حديث ابن عباس دا فلا وانا فك ماس نيو نيب اي جولي لا نيو bële di la wan ne fukki maas moo si dox kon li li ñu mën a jàngee foofu mooy fukki maas a fa dox yoo xam ñoom ñëpp ay jullit lañ dégg mën naa ne kit ne fukki maas yoo xam ne ay jullit lañ dox nañ fa waaye am na yeneen maas yoo xam ne du ñu ay jullit loolu it jamtalu na waaye daal li muy niru mooy ne fukki maas yoo xam ne ñoom ñëpp ay jullit lañ loolu rek moo fa nekk moo dox diggante Aadama ak noonu وهذا اللي يرد ذلك قول من زعم وحي قوة من أهل التواريخ شنين تاريخ وغيره أجر من أهل الكتاب شنين كتاب أنا قابل أنا قابل وبني أغي دوم عبدو جامن النار سفر والله أعلم يا ذلك خم نين أهل الكتاب أجنين شنين تاريخ وحنا نين خابل مرا ين خابل مو مقدوم لن جام سفر نين بو جابي شي حديث بي ورا ني ديغنتي ارم اك نو فكي ما سفر وخنا نيو اجري لين واخ جوجي فاي su fekkee nag lam la xadis bi bëgg wax mooy diggante aadama ak nu fukki maas dox na fa yoo xam ne ay jullit lañ waaye dàqul ne am na yeneen maas yoo xam ne duñ jullit su boobaa wax jooju moom loolu du ko dàq wala alama yàlla rek xam wayn kaa nam nekk na almuraad lañ namu bil xarni ci maas aljiilu ay nit mi ne naas si nit ñi bu dee lañ namm ci maas du téeméeri at waaye aw nit rek lañ ci namm kama kama fi qawli taala comme ni mu ñëwee ci wax yàlla ju kawe jum naan وكما هلكنا نيات لن ألك من القرون جاي ماس من بعد نوح جناو نوح ماس فوف أو نيرنا جدام وقولوا سمان شنا توب نيسر من بعد مشان جناو قرون آخرين يلين ماس المؤمنون وقال تعالى وقرون أكاي ماس بين ذلك دقان تزول كثيرا يبري فرخان وقال وحنا وكم أهلكنا نيات لن ألك قبل مجكرا من قرن جاي ماس bu fekkee maas daal aw nit la ci namm ko ko xawli ni ko wax yonte bi alayhi salaam xeyral quruni mas googu nag mu ci téeméeri at saxaaba rëcc na ma ala xadis ba xadis bi jeex su fekkee xadis bi yonentu wax ne diggante aadama fukki maas si jox aw nit la ci namu faqat kaana nekk na aljiiru jiil maas ga xabla nuuhu njëkk nu yu amaroon ñu leen dundal ak duhur jamono atawilatu yu gudd aadama fan yi daraan gudd njëkk nu fan yi daraan gudd bu fekkee yonent bi diggante aadama nu fukki maas fa dox maas googu aw nit la ci namu faala boo sukkandikoo ci lii yakun da nekk benn aadama diggante aadama woon nuux ak nuux ulufun ay junne mee ay junne junne at moo dox seen diggante wala soo jàppee daal ci ne diggante aadama ak fukki maasa dox loolu yonentoo kon loolu moo wér bu dee maas mooy at kon junne at moo seen diggante su fekkee amul yeneen xeet yoo xam ni nekkuñ jurit nekk mën naa fi junne at bu fekkee am na yeneen xeet yoo xam ne duñu ay jullit ndax fukki maas yoo xam ne ñoom ñëpp ay jullit la bu fekkee am na ñeneen maas yu fa dox te doonuñ ëpp junne at boo jàppee ne fukki maas yooyu maas lam ci mooy aw aw nit rek ah ñooñu dañ naan gudd fan kon diggante Adama nu ay junne junne at moo fay dox boobu jumlati boo tënkee lépp daal fa nuux nuux alayhi salaam yàlla jàmm allah yàlla taala لما عبد البنجام والأصنام قلمي والطواغيت الشيطاني نو بجام قلم أمي الشيطاني تلك يا الدلويوني وشرع مصوب الناس نين في الدلال تشرير والكفر وديال نين يرير كما سوى سبد يالا يا الله يوني يوني يالا نوح فبعثهم يونك الله يلا رحمة مير ما بعد نير جامي فكان نكن أول رسول دين تونجك بنجك بونسا يبل نكل أهل أهل الأرض نيون شوف yonentu bu ñu njëkk yónni si kaw suuf mooy Nuux kama yaqul comme ni mu wax loo ñeen ko ahlul mawqif ñooñ bis penc yomal xiyaamati loolu koy nit ñi di wax boobu nit ñi ñu dawee dem si yonent yàlla Nuux dinaa ko yaay ki yàlla njëkk yónni wa kaana nekkoon xaw moo ak nitam yu xaalu ñuy wax loolu ñee leen banu raasib nit Nuux ni ñu leen nga xooyee banu raasib moo tax raasib nañ de raasi mooy ku dégg rek ku ci biir géej fi ma zakaroo ci la tudd na ko ibnu jarir ibnu jarir wa xeeru ak kudul moom waxtale foo wuute nañ fi miqdaari sinni ci kem atam ñaata at la am yow ma booy sa kes bañ keroog bañ ko yónni yonent yàlla noox bañ ko yónni ñaata at la amoon fa xëy am na ñu ne kaara nekkoon na ibnu xamsina sana doomi juróom fukki at am na ñu ne bañ ko ba ko yàlla di yónni cinquante ans la amoon am na ñu ne ëpp na loolu foofu wa ne ابن سلاسي مئة دومي نيتي من أدلا وخمسين سنة تاك جيرون فكات أمن نيني ديرت تراسا سنغان تالو نيتي تيمير أدلا جيرون فكو بكو يال ديرون وخير أمن نيني ابن أربع مئة سنة ابن أربع مئة دومي نيتي تيمير أدلا وثمانين سنة أك جيرون نيتي فكات أمن نيني ديرت نيتي تيمير أدلا وان أك جيرون نيت فكو كتسا كتر فنتا نيتي تيمير أك جيرون نيت فكات أمن نيني لولا وان وطير انجلال هكا عنت له ابن جرير نت له وحي وعزام أسكن أسالس وحي نتربة من أتي وحي إلى ابن عباس نين ابن عباس مونه نين ابن عباس مونه نوح بنكو يوني 480 تان لامون نينتي تيمير زمن فكات الله أعلم وقد ذكرت ابن الله على قصة إسوارم وما كان أغلى خمنا من قومي تنتم وما أنزل أغلواتنا بمن كفرتنا ودنا به تنو من عذاب تنبغل بالتوفاني تنبنما وكيف أنجاه أغنك لكم مسلي وأصاب السفينة أغنين غالغا في غير ما موضع تلوز بن نبرب من كتابي جيتيرم العزيز بو تدبي وفي الأعراف تدنك أعراف ويونس أغهود أغنبياء أغمؤمنون أغشعراء أغنكبور أغصافات أغنبياء saar yëpp boo demee yàlla dana la fa jàngal histoire ci yàlla nu wax ak nitam ña ak weddi gañ ko weddi woon yàlla wàcc ci ñoom mbugal mooy def am mbënd rek ndox ma di ball ñoom ñëpp ñu dee yàlla dana la jàngal nam ko musalee moom ak ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ca biir gaal ga su ko defee saar yooyu mu wax yépp histoire yooyu ñëw na fa وانزل واتنا في تمام سورة كاملة سارو مات امنا سارو مات سك وقمنا يا الله واتنا كوتشيون انت يالا نوح مو إنا أرسلنا نوح إلى قومه كون اسوار يونت يالا نوح يالا جانجل نجيكو ففي فقال وانا في سورة أعراف سارو أعراف يالا جانجل في اسوار نوح نلقد أرسلنا يوني نوحا نوح ilaa qawmihi jëm ci aw nitam fa qaala mu daal di ne yaa qawmi ee yéen nit on bu du jaamu leen allah yàlla maa ñeelu leen min ilaahin ci benn buur xayruhu bu dul moom de ndeysaan yàlla nee na ba jamono yàqoo nit ñi di jaamu xerem ak seytaane dugg ci réer ak bokkaale yàlla yàlla yónni na yónni yàlla nuuhu ci aw nitam yonent bu nekk rek saw nit la yónni de ba mu des yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom la yàlla yónni ci ñëpp nu ne yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen benn buur bu ngeen war a jaamu lu dul moom de inni naka man a axaafu dana ma ragal aleykum ci yéen bu ngeen jaamu leen lu dul yàlla adaaba bu garab bis aziim bi aji màgg te mooy yawmal qiyaamati damaa ne bu ngeen jaamoo leen rek yàlla dana leen mbugal mbugal mu màgg yawmal qiyaamati rek de mbugal moom nag bëgguma ngeen egg ca moo tax ma sant leen ngeen jaamu yàlla xaala wax na almalawu way tedd ya min qawmi ci nitam ne innaa naka ñun la naraaka danañ la gis fii dalaa leen ci réer mu biin baa ji bir baa leer mbo fekk rek weddikat ya ñaareel mooy ñu ëpp alal ëpp daraja ñu daal ñooy ñooy weddi rek de ba nu xootee nag jëmee ci yàlla way tedd yee ne ko yow da rek ñun daal loolu lañ gis ci yow xaala nu ne yaa ay yéen sama nit laysa nekkul bii ci man benn réer waxut ne réeruma de waaye daf ne amul benn xeet ak bu nekk ci man rek laa wax de walakin nii waaye man rasulu ndaw laa min rabbil alamin bu jugee ci borom mbindeef yi nuuxu man amuma benn xeet ab ndawal yàlla laa rek boo xam ne yàlla ma yónni de uballixukum dana ma jottali leen risaalaati rabbi leetari sama borom waan saxu dana ma laay biir lakum leen waalamu dana ma xam ne laay ci yàlla maa laa taalamuuna lu moo tax ak yonentu moo ëpp ñëpp xam-xam rek la wax de nit ñi xamawuñ ci ci xam-xam de nuhu na leen man defuma lu may la ma yàlla yónni ci yéen rek ma jottali leen ko bëggal leen xiw laaya biir leen xam ci yàlla lu ngeen xamul rek de loolu rek la waaye amuma benn réer loolu la leen yónni ci yàlla nu wax mu ne àddax ah, wedd ngeen wax jibtum ngeen yéemu an jaakum mu dikkal leen zikrun waare min rabbikum bu jugee seen borom ala ci làmm ñu rajulun góor min kum bu tukkee ci yéen li nun zirikum ngir mu waar leen ba ngeen moytu mbugalam yàlla su ngeen gëmut mu waaree leen maanaam li nun zirikum pour mu xuppee leen mbugalam yàlla bu ngeen gëmut wal te taqoo ngir ngeen teet yàlla de waaw wala lakum amaan yéen bu ngeen teetee mbugalam yàlla ci jaamu ko turhamoon ñu yërëm leen rek laa wax ngir jaamu googu mu ne ndax su ngeen weddee da daf leen yàlla yónni ab yonantu boo xam ne mbindeef la bu bu mel ni yéen mu ñëw pour waar leen xuppee leen bëggalam yàlla bu ngeen weddee waar leen nag ngir ngeen mën a ragal yàlla ngeen mën a am yërmande de bu ngeen ragalee yàlla ndax loolu daf leen a xéem doomu aadama ngoogu nangulu nangulu doomu aadama benn may lu yàlla def ci doomu aadama rek ñu weddi ko ndax dafay réy ak ñoom jàpp nañu daal ab doomu aadama moom yàlla wuru ko yónni yenn maqaama it wuru fa yéeg rek laa wax de naka jekk loolu lu yàgg la ci doomu aadama muy xeebay xeeb moom loolu la leen nu wax ndax loolu daf leen xéem mooy yàlla def ma yonantu fa kadabu ñu weddi ko nag fan jee naaw ñu musal ko wa ji naag ñi nga xam ne maa waan nañ ak moom ñu musal leen ci lab fil fulki mbir mu ñu nekk ca gaal ga waa raxanaa ñu labal allazina gaa ñi nga xam ne kër bu wedd nañ daayaat naa suñuy ñu la walee ma de innahum na ko ñoom kaanoon nekkoon nañ xaw ma ndeew nit ami ne way gumba wari dëgg rek laa wax de ay nit lañu woon yoo xam ne dañoo gumba woon ba mënuñoo gis dëgg bañ wee de yonent yàlla nu rek ci la yàlla wàccee am ndox nag gannaaw ba nu wootee lu yàgg gëmuñ ko yàlla wàccee aw ndox ba yàlla wàccee ndox ma nag su ko defee ñoom ñëpp ñu daal leen labal rek laa wax de ndax dañoo gumboon nangu ñoo topp dëgg loolu enraaf la yàlla jàngal na fay suwaaru yonent yàlla noo alayhi salaam rek laa ngir borom xel yi xeloo ci rek wax na fii surati yunusa ci saaru yunus yàlla wax na ci suratu yunusa jàngale fay suwaaru yonent yàlla noo alayhi salaam ne wat du jàngal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhim ci ñoom na jàngal éve yi naba nuuxin xibaaru nuu nañ leen jàngal xibaaru nuu ngir ñu mën cee xaramee waxee moom nuu li xaw mi ñeew nitam ne yaa xaw mi ay sama nit in kaan dem nekk na kaburo di diis aleykum ci yéen maqaami sax gi ma sax ci yéen wa taskiri ak waare gi ma gi ma leen waar daayaati laay ci kawteefu yàlla yi faala fa tawakkaltu man wakkilu naa laay ci yàlla de faaj moo dogu leen am rakum seen mbir maanaam dogu leen def lu leen neex wa shurakaakum waa ànd ak seen i bokkaale muy seeni i xërëm ak képp ku leen dimbale su ma laa yekum topp bu mu nekk amrukum seen mbir xummatan di luñ nëbbu aleykum ci yeen feeñal leen seeni mbir ngeen préparé pour dal sama kaw su du topp ngeen woy def li ngeen bëgg ilay jëm ci man wala tunzuruni te bu leen ma muñal dara rek laa wax de yonent yàlla nuu ne yéen sama nit su fekkee sax gi ma sax ci yéen di waare di fàttali ni ñuy kawteefu yàlla yi di leen ci woo daf leen naqari man wakiilu naa dellu ci yàlla dajale leen lu ngeen man ci mbon ak ci lor yéen ak képp ku leen dimbale te sax jarul ngeen koy nëbbu feeñal leen ko ba leer naññi pour ñëpp ñëw dimbale leen ngeen woy ñëw ci man te bu leen mu muñal man faale mu ma leen laa wax maanaam dal leen sama kaw def na ba amatul kenn ku mu wéedu mooy leen aywa yéen ñëpp bu leen neexee def leen lu leen man maa ngi nii wakilu naa ci yàlla moo tax ku wakilu ci yàlla kenn mënul ko dara laa wax de mu ne fayn tawallaytum ndem dëddu ngeen ba bàyyi samay waare fa maa saaltukum laajuma leen min ajrin ci tiyaaba dëddu leen man laajuma leen benn fay kon bu ngeen ma wonee gannaaw it faale wu ma dara ndax man yaakaaruma ci yéen dara de in ajriya déet sama fay illa ala laahi lu muy mu nekk ci yàlla yàlla mi may fay daal mooy ki nga xam ne su ma wanee gannaaw mu naqadi ma waaye yéen xawma si yéen benn yaakaar kon su ngeen ma wanee gannaaw du ma naqadi de woo mi tudd dana digal nañ ma ana ko na ma nekk mel muslimin si jullit ñi rek laa wax de ma digal daal mooy ma nekk jullit moo tax xeet yëpp ay jullit rek lañ mos di doon rek laa wax de yonent yàlla noo ngoo ak gaayam fa kazabu ñu weddi ko fana jéynaaw ñu musal ko waman maawo ak ñaan ak moom fil furki ca gaal ga ñu musal ko musal ñaan moom ca gaal ga wa jaan ñu def leen mooy nuwoog ñaan moom xalaay fa ñooy wutu filaat ci suuf ñooy wutu waaw ñu ñu wutu yàlla ci suuf si rek laa wax de naa ñu labal alladina gaa ñi nga xam ne kasabu wet danañ baayaat naa suñu kawteef ñu labal leen ca mbënd ma mooy asamaan si wàcc ndox suuf si di bënd ndox ñoom ñëpp ñu lab waaw dégg nga ndax weddi guñ weddi kaawteef de fantur xoolal kayfa kaana naka la mujjee aqibatul munzirina mujj ak ña ña ñuy waar te mooy xalak gi yàlla xalak rek de xoolal fañ mujj mooy yàlla xalak na leen kon histoire boobu yàlla jàngal nañu ko ci diggante yonent yàlla nu ak nitam yi weddi giñ ko weddi ba niñ leen xalagee waqa waqaala wax na taala fi surati huut ci saaru huut yàlla jàngal na histoire nu woog ni tamit ci saaru huut ne wala xadaar salla yónni nañu nuuxan nu ilaa qawmi jëm ci aw nitam yàlla nee na yónni nañu yónni nu ci aw nitam mu ne inni naka man nazirun aji xuppe laa lakum ñee leen mu binun bi aji waa daa ji leer di waare dama leen waar waare gu leer rek laa wax de allah taabudoo te mooy ne bu leen jaamu illallah lu ma yàlla inni naka mën a xaafu dana ma ragal aleykum ci yéen bu ngeen jaamoo leen dul yàlla adaaba yawmin mbugal bis alimin bi aji médital ci àddina ak àllaaxira noo wax na nitam ne leen maa ngi leen xupp ne leen bu leen jaamu dul yàlla de ndax su ngeen jaamoo dul yàlla rek mbugal mu mu nga xam ne dana médital seen ak yaram ci àddina ak àllaaxira leen dal dégg nga fa xaala mu woo almaloo way tedd ña alladina ñi nga xam ne kafaroo wedd nañ min xaw mi ci nitam yi ne ko maa naraaka gisuñ la daal illaa basharan lu may ngi mindeef mislana comme ñun loolu xarak ñu bari mooy diw daal nit la comme ñëpp rek kon may gi ngeen wax ci moom xamut nit ñi mel rek noonu la mel fekk yàlla yemalewul nag maqaama yemuñ may yemuñ rek laa wax de ñu ne ko mindeef nga rek comme ñun xamoo benn ngëneel boo ñu gënee wama naraaka gisuñu tabaaka topp na la illa lazina lu mooy ñi nga xam ne moom ñoom arasulu naa ñoo ñu suufe ñu de ñu ne ko yow ñu suufe ñu rek ñawkat doole yi ñoo la topp baa dee si njël benn xalaat maanaam ñoom xalaatuñ sax bañ lay topp ñii dañoo dof rek gër-gër rek te xalaatu xalaatuñ dara kon ñun duñ la topp xam nga sa mbir du bu doon tus ñu ñu tedd ñi ñooy nekk sa gannaaw waaye ñu suufe ñu duñ nekk sa gannaaw de sa mbir bu doon tus sax nit ñu suufe ñi balaa ñu topp danañ xalaat waaye ñoom xalaatuñu dañoo ñëw rek daal di gëm noonu ndeysaan wamaa naraa gisuñ lakum ñeen lenaa lenaa suñ kaw min fadliñ ci ngëneel ñun daal gisuñ ne am am na lenn lu ngeen ñu gënee bañ war leen a topp balli fi nekk na sunnukum dañ leen njortu kaas yi beneen ngeen way nar de ñun daal ñoo yaakaar na sax li ngeen woote ne yonantu ngeen du dëgg moo tax weddi kat yëpp loolu la ñuy weddi dañoo yaakaar lu dëgg waaye woo eh, njort rek ci lañ ko teg ak diw ak diwoo ko topp ak diw mbindeef rek la loolu daal moo leen sànq xaala wax na moom nu ne yaa qawmi e yéen sama nit araaytum xibaar leen ma in kuntunam nekk naa ala bayinatin ci leeral mais rabbi bu tuggee sama borom waataani mu jox ma rahmatan ak ak yonantu min indi bu jugee ci moom faam yet mu nëbb aleykum ci yéen anulzimukumuhaa ndax dañ leen koy forcé wantum te fekk yéen kaari woon way sim ngeen laa ñeel ko de ñun xam ngeen ne mënuñ loolu ci yàlla nu ne leen léegi li ma bëgg ngeen wax ma mooy su fekkee sama mbir lu leer la <clears throat> jugee ci yàlla yonent gi ci yàlla la jugee waaye yéen moom leeru leen ma ndax dama leen forcé ba ngeen gëm ko te bëggu leen koo gëm man loolu mënuma ko mënul ma leen forcé rek laa wax de dama leen bàyyi rek ba ngeen sànq lii daan la jàngal ne ma yi duñ leer ñëpp yonent yàlla Nuux moom leer na ko ne moom yonent la ci yàlla la jógee waaye loolu leerul aw nitam de du tax nag mu forcé leen daf leen bàyyi rek la leen cee dal dal leen su fekkoon ne maqaama wëllu yàlla foo mu leer naññ ci ñëpp konoon yonent yàlla Nuux du wax lii de ak yonentam dana leer ci ñëpp <clears throat> waaye am na ñoo xam ne lënt na ci ñoom ba mu ngi leen wax lii yàlla yàlla dimbali xol ñun ba duñ weddi benn mayab wëllu yu واو كوني يود رك دوي فك مو نك نونا بيالا واو شاي شاي بو يقر لا ما دي انا يال دفلو سوي ويا قوم ان تو لا سالكم لا جملين علي شي جوتي لي ترغي مالن علن رك دي لي مالن جوتالي سوخلو ما سي بن علن ان اجري ديت سمو فاي الا على الله لو ما سي لو ما اجي نك لا سي يالا دي من يالا رك ماي فاي ين فاي لين ما وما انا دير من dégg nga bi taaridin mais ji dàqal la dina gaa ñi nga xam ne amonoo gëm nañ wax ngeen nañ ñi gëm ay nit ñu suufe leen naa leen dàq du ma def loolu de ndax innum na ko ñoom mulaaqu rabbi maa ji dañoo ak seen borom daneen dajeeg seen borom mu dekkil leen fay leen waaw yéen ñi leen leen tooñ yàlla mm, fayekul leen waaw kon man du ma leen dàq ndax su su ma leen dàqee yowmal xiyaamati yàlla dana dal sama kaw de waa walakin ni waaye man araakum dana ma gis leen xaw man ngeen nit tajahaloona yu réer yéen daal gis naa ne ay nit ñu réer ngeen foo ci réer rek ngeen i mucc <clears throat> waaye xawma yéen sama nit man yan suru nii ana ku may dimbalee mene laay ba tere moom mbugalam yàlla in taratun bu ma dàqee sama nit de ñii ngeen ngeen wax ne ay nit ñu suufe leen naa leen dàq bis bu ma leen dàqee toppatoo ma leen jubalu ma leen kenn mënu ma dimbale ba yàlla du ma mbugal afalaa tazakkaruuna ma ndax du ngeen fàttaliku rek laa wax de mbiram yàlla ñëpp ci yem jëm li na bokk ñii rek ngeen am teraanga yi rek laa wax de mu ngi noonu xoote boo gis ña di ña moom ñooy mujj a ñëw wala aqulu du ma wax lakum ñeen leen neen di nekk na fa man xasaayinu laayi magasin yu yàlla de wala du wax ne man alamu dana ma xam alxayba lu fàddu wala aqul duma wax ne nii ni man malakun malaaka laa man waxuma leen ne leen magasin yàlla yi ci man la nekk damay tubb di joxe loolu kenn xamul ko wali yàlla yi ak yonent yi ñoo fi nekk ñaan rek la ñu am seen digganteek seen borom yonent yàlla nu ne moom it loolu la xam de waaye nag yorul magasin yi xamut xaybu yàlla rek xam lépp xaybu waxuma leen ne man malaaka nit la comme yéen waaye nag yàlla def na moom yonantu loolu moo di ngëneel li de wala aqul du mu wax li lazina ñeen ña nga xam ne tasdari dana ko xeeb ayunukum seen bët nan lan yutiyum du leen jox allah yàlla xeeran yiw allah yàlla alamu moo gën a xam bi maa fi anfusim lu nekk seen xol ña ngeen xeeb ba jàpp ne du ñu am dara man du wax na ñooñu yàlla du leen jox lu baax de ndax yàlla xam nekk ci ñoom <coughs> buñ baaxee daal yàlla jox leen lu baax wuteeg diine wahabi ñoom jàpp nañ ne ku ñoom rek yàlla du ko jox yiw rek laa wax de yonent yàlla nu moom daaw wax lool inni naka man idan bu mu waxee loolu lamin azalimin maa ngi bokk si bu mu diw yàlla du ko jox lu baax tooñkat laa ndax ko diggante yàlla ak jaam bi kenn xaju fa <coughs> jaam boo xamee nee na julit la ku wax ne doo am lu baax rek yaa ngi tooñ de <coughs> comme ni koy waxaa bi defee xaalu <coughs> ñu ne yaa nu yow xat jaadal tanaa xuloo nga ak ñun faak sarta bërin nga jidaale na ak xuloo faatinaa andil ñu sax bi maa temps dunaa li ñuy dig ci mbugal in kunta mu nekk nga mina saadiqina ci way dëggu yi ñu mujj na ko nuu sa xuloo gi bëri na sa cool yi bëri na léegi daal mbugal mi ngay wax ne xam na andi bu fekkee wax nga dëgg xaal <clears throat> nuu ne innama yaatikum naka dana mu andil leen bii ci mbugal mi àllaaw yàlla insha bu ko bëggee gaawee yàlla su fekkee bëgg naa dana ko andi ci yéen de wa ma antum te déet yéen bi moo ji dina di wéy ci yàlla waaye man moom du maa indi mbugal suma coobare bopp de wala yéen fonkum du leen jariñ nu si sama laaya biir in aratu nem bëgg naa an an sama laaya biir lakum ñeel leen in kaane nem nekk na laaw yàlla yuridu di bëgg an yuxuyakum ngeen ak bew su fekkee yàlla dafa bëgg ngeen bew réer sama laaya biir gi du leen mën a jariñ dara ndax woo moom yàlla rabbukum mooy seen borom wéy ci moom tur jawoon lañ leen di delloo laa wax bëgg rek من لما ورق لانه موي لايبرين ام بايل يقولون دن دن يقولون دن يوان يمه في المكي نفتراه محمد مو فنت القرآن قل وهل إن افتريتو نم فنتناكو فعلا يوارنا ما إجرامي سما بكار قال رك يونن تبي ليني وقتي مم مو فنت القرآن من دقل سوفكين دعنا وانا ماكو فنت من بكار بسما كولاي دانو ده واي وانا من مم بري ونا جدنا لا مما تجدي منا ci li ngeen di tooñ yéen mooy di ma askanee fente alquran te fentuwuma ko loolu moon seet naa ci xawma ci benn bàkkaar laa wax de <clears throat> naka noonu yàlla yi ngeen di tuumaal ne dañuy njabar te xamu leen fu ñu njabaree ne dañuy bidaa te ñoo gën a naa sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dégg nga waaw dañuy wax nit ñi loo xam ne teguut ci yoon te seen xam-xam rek fa yeggut muy lu njub loo xam ne ne àddina yëpp dajee nañ ci waaw seen woote saaroo ci àddina noo mën a mel rek ku la ëpp xam-xam mu ngi ci gannaaw lii boobu su ko defee nga di ko sosal sosol yooyu nga koy sosal bu dee dëgg la bàkkaar moom moo koy gàddu rek laa wax de waaye moom sos yi nga koy sosal moom dañ na ci rek laa wax yu nañ ilaa nooyin jëm ci noo an moom la ñu du gëm min xaw mi ko saw nit illaa man qad amana lu falaa tabta'is bul jaq bi maa kaanu ci lañ la nga xam ne nekk nañ ko ya fa yafaluuna doon ko def ci bokkaale yalla wax yu ne ko ñala xas gëm dal jeex na keneen do do le ko dooleekooti ken dot la gëmati kon bul tiit ci bokkaale gañi nek rek la wax de xamal ne loolu la yalla dogal ci mom bul tiit yow dootuñ gëmati de ci la nu ñaan yalla nak bako yalla yàlla nako xel wi duñ gëmati mu ñaan yalla ne rabbi laa tazar alal ardi mina kaafiriina dayyaaran yàlla bu leen fi bàyyi ñoom ñëpp xalak leen yàlla nangu ñaanam na ko was naa liggéeyal alfulka gaal liggéeyal gaal yow yonent yàlla nu bi ayuninaa si suñuy gis wa waxinaa ak suñuy waxyu yàlla ko waxyu yenkawal ko nu ñuy defaree gaal na ko defaral waaye wala tuxaatim nii bul bul ma laaj fi ladina ci nga xam ne zalamu tooñ nañ dégg nga ña bu ma leen xalak nag bul bul ñaan yàlla ñu mucc de balee nag ñu xalaku innahum naka ñoom mu war a xona dañuy lab de foo ñu lab moo tax ku nar a xalku fekk mbugal mi ñëwul rek du génn ci alkaane gi <coughs> loolu waral ñenn ñeen woon a wëli yàlla yi boo waxee ñu ne wëli yàlla mooy ku ragal yàlla waaye du mooy ko am karaama in kay wali kay dana am karaama ndax karaamatul awliyaa kenn du ko wedd rek laa wax de waaw Mariama wali rek la xoon yàlla may na ko malaaka yi di ko gis di wax ak moom di ko wan fa yàlla rek laa wax de ne wastafa ka nisaa'il aalamiina yàlla tànn la ci jigéen àddina bi rek wax de waaw yàlla du ko andil fir wi waaw yoo xam ne nii waaw waxtu woowu du waxtoom te amut fa dégg nga loolu yëpp karaama la ko ko yàlla defaloon moom yonent yàlla wax de karaame awliyaa yi du luy jeex boo demee ci diggante xadir ak Moussa rek xam ne xadir wali loon ak karaama yi ko yàlla defal da nga xam ne karaama ak awliyaa du lu nit mën a weddi ku ko weddi rek weddi alquran waaw nga bëgg wax ne wali yi moom ragal yàlla gu àndut ak benn karaama la waxoo dëgg wali yi dana mooy ko ragal yàlla gaa waaye am na wali yàlla jagleel nag ba may leen karaama te ñooñu sax. seen ragal yàlla moom lu fees la tabax nañ jumaa taayif nañ téere waaw jaamu nañ seen borom ragal leen yàlla la ñuy wax nit ñi guddee ga bëccëg defu lu mooy raw la ci xam-xam rek nga weddi leen di leen noono waaw fekk alkaani ñëw rek doo ci génn xam na ñu mel noonu yàlla incha allah musal wees na ma dana liggéey alful ko gaal rek la wax de nu ma ngay liggéey gaal wa kullama marra saa yu rombe ci moom malaw na aw mbooloo min xaw mi caw ci moom gaal bu ko gars yi rombee rek commencé ree ba kekku di ko ñaawal naan moom ab yonentu boo xam ne léegi ministre la daal soppee ko na commencé di ko ñaawal moo tax nitu yàlla yàgg naa sonn de xaala yonentu yàlla nu ne in tasxaru nem reetaan ngeen min naa ci ñun fay naa ñun nasxaru danañu na comme ni ngeen ree rek laa wax de yéen ak ñuy ree ba ngeen rek laa de fa soo fa a a xam bisa da ngeen xam rek laa wax de man yaati ka dana ko dikkal azabun mbugal yux si bu koy gàccaal waaye xelu dana wàccaal yi ci moom azabun mbugal muqimun bàyyi sax rek laa wax de léegi ngeen xam kan la yàlla nit mbugal mu koy gàccaal wàccee ci moom mbugal mu sax de hatta ida jaabum dikkee amrunaa suñuy mbir te mooy ñu war leen a xalak wa faara mu fuur atanuuro pour ba pour ba ñuy lakkee mburu commencé génn ndox te yàlla xamaloon na yonent yàlla nu ne ko bu pour bi commencé bal ndox rek xamal ne mbugal maa ngi ñëw xul naa ci lañ wax ne ixmil xenal fiyaa ci gaal gi min kulli zawjayni ci bépp ñaar muy góor ak jigéen is ne ñaar góor ak ñaar guy jigéen rek lu nekk rek jël ci góor ak jigéen dugal ci gaal gi yàlla pangal yonent yàlla nu picc yi ak ndog ment yi ak mboolem rab yi rab wu ñëw rek mu tàllal loxoom bu tàllalee loxoom day joor góor tàbbi ca mu dugal ca gaal ga bu tàllalee loxo ca mooy jigéen tàbbi ca mu dugal ca gaal ga ba mboolem xeet rab yi ngay gis yëpp duggoon nañ ca gaal ga waxala dugalal say soxna ak say doom te sa ñooñ de waaw illaa man lu mooy soxna si nga xam ne ak doom yi nga xam ne sabaxa jiitu naa la ci moom alxawlu mbugal <coughs> kanaan daf ko wedde woon kooku la yàlla génne ne kooku moom mbugal mi jiitu na ci moom du dugg mukk de ak soxnaam sam <coughs> saam ak xaam ak yaafis ñoom doom yonent yàlla nuur la waaye yonent yàlla nuur dugal na leen hmm. ak seeni soxna waman amana ak képp ku gëm rek na dugg ci gaal gi waman amana gëmul maa waan ak nu illaa qalilun lu moo ñu tuuti ñu tuuti ñoo ko gëmoon ak lu muy foor foor nee nañ juróom benn góor ak seeni jabar ñoo gëmoon yonent yàlla nu ak woote bu yàgg bu métti boobu yëpp juróom benn góor ak seeni soxna rek ñoo ko gëm ñi ne déedéet mboolem ñu nekkoon ci gaal gi daal juróom-ñetti nit la juróom-ñetti fukki nit ñeen fukki góor la ñeen fukki jigéen ñooñu rek ànd ak yonent yàlla nu mu dee lu mën a xew daal mbooloo mu tuuti ñoo ko gëm ak lu xoote bi di yàgg moo tax nit ñi bari ñu gëm laak weddi mu solo ndem li nga nekk ci yàlla la jógee rek góorgóorlu waxaala wax na nu nu ne bu war leen fiyaa ci gaal gi bismillah ci tur yàlla majreya mooy dawam wa marsa mooy teeram gaal gi ci bismillah moo koy dawal moo koy taxawal inna rabbi naka sama borom la xafuurun aji la xafuurun aji jéggale la rahimun aji yërëm yërëm moo tax xalaguñ <coughs> moom gaal gi tëjee mu ngi daw bii ñoom fii moo jin duusu géej kal jibaal yu mel ne ay doj rek laa wax de duusu géej a ngi yëkkatiku mel ne ay doj gaal gay daw wanaa daawoo na nuu nuu ibnoo doomam jotam wari kanaan kanaan nag doomu yonent yàlla nuu la waaye we dina rek laa wax de waaw ànd ak mu sànku ma nuu koy wakaana nekk na fi mahzirin di beru gaal ga nu ne ko yaa bu ne yow sama ndoom irkab waral maana ànd ak ñun wala takun ta nekk mukk maal kaafiriin ànd ak weddikat yi nu ne sama ndoom te nga war ànd ñun waaye bul ànd ak xéeféer yi euh, doom ji ne ko saa wi dana ma tàppi wi laa jabalin ci gaal goo xam ci doj woo xam ne yaa su mu ni dina ma musal minal maayi ci ndox mi doom dina déeréet man dugguma ci sa gaal gi damay dem làqatu ca doj waree ngir ndox mi du ma mënal dara xaala yonent yàlla nu ne ko la asima di daji muccoo yow ma tey min amri laayi ci de illaa lu man rahima ka yërëm na ko moom yàlla ku yàlla yërëmu tey daal du mucc de du gaa du ndox du dajak du dara lu la mën a musal te ngaa ñëwaan nag man waxaala mu diggale baynuma seen diggante al mawju duusu géej gi rek laa wax de ci wax jooju rek ci la duusu géej dox seen diggante ñoom ñaar fa kaana mu nekk moom doom jamine mu war xëy na di bokk ci ñu way way labe de ci la doom jalab <clears throat> moo tax askan waaw amul njëriñ su fekkee borom baaxul rek laa wax de wax nañ ne yaa ardu suuf si iblaayi wanal maa gi sa ndox mi ba ne ba yonent yàlla nu teer yàlla ne teer ñëpp dugg ci gaal gi <laughs> xéeféer yi lab yàlla ne nu eh, yàlla suuf si wannal sa ndox mi <clears throat> mu daldi di rek laa wax de hmm, wan lépp lu ma xamoon waaye la wàccoon ci asamaan moom dégg nga loolu yaay dex ak géej <clears throat> dégg nga mu ne waaye asamaan waaye asamaan aqli teel sa taw bi asamaan si ba taw waxii la mu mu wàññeeku almaahu ndox mi wa quddiya waaw mu jeex alamru mbir mi maanaam yàlla xalak nit yonent yàlla Nuux yi wastawat waaw mu daldi di moom galga ga xalal ci dojëb juudi juudi ab doj la bu nekk si jasira waxii la waxef nañ bon doon alkande lil xaw mi ñee la nit ñaa weddi yàlla te muy xéwéeri <clears throat> గుణాధావన నువ్వు నువ్వు రబ్బో పరమం నువ్వు డాల్ది హవ పరమం فقال من ربي وسم برم إنم نينك سم دوم كنان من أهلي من بوك سم جبات دوم جهل كنا نك نو بوم واتشي نيتو يالا لوم جيجي جيجي يالا دنا يرم جباتم نو نه يالا كنان سم دوم لا تيو دينغم دينغم نه سم جبات دنا مچري وين وعدك نك سديجي على قد دغلا amul mukk lu ci ñàkk am wante waa kamul hakimina yaa gën a xam ci ay attekat yi te yaa gën a maandu ci ñoom de xaala buur ne ko yaa nu e yow nu naka moom lay sa nekkut min ahlika di sa bokk sa njaboot yi mucc ndax bokkul sa diine de ndax innahu naka laaj gi laaj ne ne mucc amalun jëf la xeeru saalim joo xam ne baaxut bul ko defar rek laa wax ndax moom xéeféer la te xéeféer du mucc de wala innahu naka moom waaw kanaan moomu amalun jëf la xeeru saalim ju baaxut kanaan ci boppam baaxut moo tax bokkul sa njaboot loolu waral gaa yi ñu leen dëng dafay dagg mbokk ndax boo dëngee rek waaw sa baay lu mu baax baax yàlla dootu la askareti ci bàyyi yooyu laa wax de waaw falaa tasalni bu ma laaj maa la nga xam ne lay sa nekkul làkk dira ñeel bii ci moom el mun xam-xam bul ma laaj loo xamut naa ma naa musal sa doom jooju te doom ja baaxut inni naka man ay zu ko dana ma waar la an takku na ba boo nekk mel na jaay dina ci way fexeel ba di ma laaj loo xam ne mënul nekk rek laa wax de xaala wax na moom nuuna rabbi yow sama borom nii nag mën auzu maa ngi musu bi ci yow mi naan asalaka ci ma di la laaj maa nga xam ne lay nekkul lii di ma ñaal bii ci moomeel mun xam-xam way laa tax fi lii boo ma jéggarut rëcc rëcc bi jógee ci man ni nii wataraxam nii nga yërëm ma ci ñaan gi ma ñaan lii akun dana ma bokk mel xaalis leen ci way perte yi de nuuna yàlla maa ngi jéggaru maa ngi muslu ci lee laaj loo xam ne aw ma ci xam-xam boo ma jéggalul yërëm ma rek mu bokk ci way perte yi la wax nañ ne yaa nu yow nu hibit wàccal waaw wàccal ci gaal gi bi salaamin ànd ak mucc waaw wala ak nuyoo min naa bu jugee ci ñun wa barakaat na ngay yiw alayka yi nekk ci kaw waala umumin ak ci ay xeet mi man maaka ci ñaan ak yow rek laa wax de ca gaal ga ñoom ñëpp am nañ barke ak ak jàmm waaw umumun ak aw aw xeet yaa nag yow sunu matti moom dañ leen xewalal ci àddina su ma yemu suun topp mu laal leen minaas ñun azaabun mbugal alimun bi añu métti am na xeet boo xam ne yaa nag yow dañ leen jox xewal ci àddina waaye nag danañ am ñu ñu wedd yàlla nekk kéeféer ñooñu moom danañ leen mbugal mbugal mu métti ci àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal laaxu de yooyu ak aay yooyu min an bàyyil xëy bi mu ci xibaar yi faddu muy bokk si nga xam ne daf laa far yow yonent bi nuuxiyaa danañ ko wax yu léegi jëm si yow Muhammad maa kunta nekkoon taalam waa di ko xamante yow wala xaw ma ko du caagin soo nit min qabli haza njëkk lii njëkk alquran xamoo woon lii waaye gannaaw ba alquran leer leer rek ci nga xam fas muñal ci lor wi ngay daj saw nit ba jottali rek laa wax de comme nu nuux muñoon inna laa xibata naka mujj gëñ sant leen mu ragal yàlla ña ragal yàlla rek ñu am muñ guñ sant rek laa wax de kon yow muñal rek comme nu yonent yàlla nu muñee woon laa yooyu yàlla jàngal na ci dara ci histoire yonent yàlla nu alayhi salaam ak aw nitam ak weddi gañ ko weddi ak mbugalam yàlla mañ mujjee rek laa wax de waxaal wana taala yàlla mu kaami fii suratul anbiya waaw ci suratul anbiya ne wa nuunu isnaada ba mu woowee min qablu bu njëkkoon fastajab naa ñu nangu loo ñeel ko fa na jee naaw ñu musal ko waalu ak ñu ñoom meneen karbin azimi si njàqare gu màgg nga te mooy mbënd moomu wana ñu dimbale ko meneen xaw mi ci nit ña alladina yi nga xam ne kasabu wet nañ baayat naa suñuy kawteef innahum xaw ma sawin di nit yi waaw bakkaar di nit ñu bon fa xanaa ñu lafal leen ajmaay na mboolem seen de yàlla nettali na foofu ci suratul anbiya iswaaru nu alayhi salaam dégg nga ne nuuxun wa nuwaan nu isnaada bu wooye min qablu bu njëkkoon nu ñaan na yàlla ne ko yàlla xalagal sama nit njëkk ibrahima ak luut loolu nu def na ko mooy min qablu bu njëkkoon maanaam njëkk ibrahima ak luut yàlla nangul ko ñaan musal ko moom ak ñaan nag moom ci gaal musal leen ci njàqare gu mag ga te mooy lab ga dégg nga rek laa wax de dimbale ko ci nit ñi nga xam ne weddi ay kawti ay kawtifam waaw weddi yonantu giñ ko yàlla yónni ndax ñooñu ñu bon lañ yàlla labal leen ñoom ñëpp daal di leen xalak kooku yàlla nettal na ko rek laa wax de wa qaala woona taala kawena fii surati qad aflaha al muminuuna ci saaru qad aflaha na fa ne wala qad arsalnaa yónni nañu nuuhan nu ilaa qawmihi jëm ci aw nitam fa mu ne yaa qawmi yéen sama nit i'buduu jaamu leen Allaa yàlla maa lakum de dina ñeel min ilaahin ci benn yàlla xayru budul moom moom rek moo di yàlla jaamu leen ko bu leen jaamu keneen rek laa wax de afalaa a ma ndax du ngeen ragal mbugal ma su ngeen jaamu keneen ku dul yàlla fa wax naa la ma taddiya maanaam borom daraja alladina ñi nga xam ne kafaroo weet nañ min xaw mi ci aw nitam ne ma sa déet kii laa basirun mooy mu mbindeef mislukum comme yéen yuridu dana mu bëgg ani tafaddala mu gën aleykum ci yéen dafa leen bëgg gën rek bëgg nekk ku ñuy topp yéen ngeen di ko topp loolu rek la bu leen ko topp rek laa wax de wala saa bu sooboon allah yàlla yàlla bu bëggoon ñu jaamu ko laan dala ko doon kay mu wàcc malaayka dan malaayka yàlla bu bëggoon ñu jaamu ko malaaka lay wàcc du wàcce mbindeef kii waxu dëgg bu leen ko topp nit rek la comme yéen dafay wut daraja rek ak mbooloo ndeysaan ñu ne maa sami naa dégguñ bi haasaa ci lii nuuxu di xootee fia bàyyi naa suñuy bàyyi al awwalina ñu njëkk ña xeet yu jiitu daal lii daawuñ ko wax kon du dëgg ba léegi loolay diine wahabi dégg nga in woo déet moom illaa rajulun mooy nit koo xam ne bii nekk na si jiinu suñu ak dof ñu ne kii dafa dof rek dafa ko jàpp rek muy fa bebatu mu muñal leen bii ci moom ataayin baab jamono rek de xaar leen ba mu dee rek ngeen delluwaat seen la ngeen nekkoon bu leen ko topp ba leen ko fii rek bu dee rek ñu am jàmm xaala ci la nu wax ne rabbi yow sama borom unsur nii dimbale ma alim ci ñoom bi ma kasabu nii saw bi weddi giñ ma weddi yàlla weddi nañ ma waaye dimbale ma rek laa wax de seen kaw yàlla bu ñu ci man faawaay naa ñu wax yu lay jëm ci moom anas nay na nga liggéeyal ful ko gaal bia yu naa suñuy gis ak suñuy wattu ba wax yi naa suñuy wax yu liggéeyal gaal ñu ngi lay wattu di sàmm te ñun ñu ngi gis waaw danañ la wax yu nuñ koy defaree de fayda jaanem dikk na amru naa suñuy mbir wafaara mu fuur atanuru pour ba waaw pour buy euh, lakk mburu bu commencé génne ndox fas lu sóobal fiyaa ci gaal googu waaw dugal ci min kuli zawjani ci bépp ñaar maanaam góor ak jigéen dugal ci lu nekk rek nga dugal ci góor ak jigéen is na ni na ci dugal ñaar su ko defee yàlla pangal ko picc yi ak lépp rek bu tàllee loxoom day joor góor dugg mu tàllal loxo moy waaw jigéen dugg rek laa wax de waala sa ñooñ mooy sa jabar ak sa doom illaa man lu may ñi nga xam ne sabaqa jit naa lee ci moom alqawmu alqawlu mbugal ma minum ci ñoom amaa ñi nga xam ne ni mbugalam yàlla jit na ci ñoom moom duñ mën a dugg te mooy soxnaam ak doomam kanaan waaw waaye sam, ak xaam ak yaafis ñoom dugg nañ ak seeni ñetti eh, ñetti soxna rek laa wax de dégg nga ñi gëm it dugg nañ ca gaal ga ñi gëm ñeneen juróom benn góor lañ ak seeni soxna ñi ne déedéet ñu nekkoon ci gaal gi yëpp waaw juróom ñett fukk lañ am ci ak juróom ñaar genn wàll gi di góor genn wàll gi jigéen mu ne ko wala tuxaatim nii bul waxanteeg man fi la dina ci gaa yi nga xam ne wala mu tooñ nañ ñi ñi tooñkat yi bu ñuy lap bu leen ñaanal yërmande yàlla xam na ne ab yonent dafay bëri yërmande innahum na ko ñoom moo raqoona foo ñu lob rek laa wax de fetes tawete boo temmoxee mu naan boo toogee ante yow woon maaka ak ñaan nag yow alal fulki ci góol ci gaal gi foqul waxal am du cant laa ñeen yàlla ëllësi yàlla mi nga xam ne jaanaa musal nañu meneen xaw mi ci nit ña zaalimi ne ñëwee tooñ waxal ne boo demee bay dugg ca gaal ga waxal ne ñu ngi sant yàlla mu ñu musal ci tooñkat yi waxul waxal jamono booy wàcc ca gaal ga ne borom anzil ni yàlla nga ma wàcce munzalan wàcc waaye waa mubarakan bu barkere laa wax de waa waa ante yow yàlla xayrul munzilina waaw yaa gën ci yooyu wàcc yi de sooy wàcc ne yàlla yàlla nga ma wàcce wàcc waaye wu barke yaa gën ci mboolem ñuy wàcc laa wax de inna fi zalika nekk nekk na ci loolu ñu tudd ci mbiram nu ak xalak gi ñu xalak xéeféer yi laa yaa tinay tegtali waaw wen kun naa dem la mubtali leen di way natt nitu nuuy rek laa wax de ñun dañ doon natt nitu nuuy yónni si yónantu si ñoom mu waar leen ñu weddi kawteef yu bëri mu ngi ci bokk na ci yàlla may nit maqaama mun na bu ci yow rek nga weddi ko ne du dëgg ndax xamoo ko lan nu mi naa xataa nu tee misla maa utee rasulullah loolu la gaa yi waxoon ñun daal balaa ñoo gëm foofu ñu xam li ngeen xam yàlla may ab waliyu kawteef mu xam ay xar baax ak ay ngëneel nga ne ko déedéet waaw ngëneel moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek ko mën a xam waaw ñun balaa ñoo gëm foo ñu dem foo ñu daal ñu ba am ci lu leer loolu mooy naraw gëm kenn rek laa wax de ndax yonent bi sax la nga ko gëmee lu ci bëri dara leer la ci da rek wala yàlla it waaw ñoo doon yonent yi rek laa wax de seen ak may nag waaw du du ñëpp koy am rek laa wax de yàlla xamal nañu ci alquran nee na xamal ak wëli yëpp ak Eh, Ibrahima eh, kii Mariama yàlla xamal na ko yàlla tànn na la si jigéen àddina bi yëpp bu taxawoon ne maa gën si jigéen àddina nga ne ko am sa tegtal mooy da ngaa naraal ku rek nara weddi loo xam ne dëgg la nit dem na di ziyaare mbokkam malaaka dikkal ko waaw ne ko euh, loo foo jëm mu ne dëkk sàngam damay ziar sama mbokk yàlla rek tax ndax da nga am aajo mu ne amu benn aajo mu ne ko xamal na yàlla bëgg na la nu mu bëggee waajooju kooku malaaka ko xamal na ko yàlla bëgg na la bu ñëwoon ne ma yàlla ne yàlla bëgg na ma nga euh, ana hadis baat laaja mooy da ngaa dox rek naraal ko wala yàlla am na ñoo xam na seen ak lam ñu xaal la muy wax mooy wëlli bi fekk xaw ma lim rek waaw man du ma gëm rek laa wax de waaw te bi andiwul mukk lu wuteeg chariatu danañ ko jiñ nag bidaa danañ ko jiñ ak kéeféer waaw danañ ko jiñ weddi yàlla danañ ko jiñ waaw jëf ju ñaaw ju nekk rek laa wax de waaye ci mën a andi benn preuve rek laa wax de yàlla ñu bokk ci ñi nga xam ne nii waaw dañuy nangul awliyaaw rawatina ci caaxaan ku ñu weddi rek daf di koo xam ne wël yàlla yi ci moom ñoo ko njëkk weddi yàlla yàlla defal loolu wa qaala wax naa fii surati saaru Shu'ara nekk sabar weddi na xawmu noo nitu nooyi al mursalina yonent nitu nuuy weddi nañ yonent ya dégg is xaala ba mu waxee lu mu ñe leen aquum seen mbokk noonu ala tattaquna man ab du ngeen ragal yàlla inni naka man rasulu yonentu laa lakum ñee leen am yonent bi aji wóor fattaqu ragal leen alla waati yow nii topp ma nit nuuy weddi nañ yonentu ya bañ wedde yonent yàlla nu yàlla def na yonent yëpp lañu weddi ndax yonent yàlla nu ku ko gëmu rek mënatoo gëm benn yonent ba mu jariñ la moo tax yàlla ne nit noo yi wedd nañ yonent yi rek laa wax de naka noonu boo weddee benn waliyu hmm. mu ngi weddi weddi nga waliyu yëpp nu ne ndax du ngeen ragal yàlla yonentu laa bu ragal leen topp ma de wa maa salakum laaju ma leen alayhi ci jottali gama leen jottali mbiram yàlla min ajrin ci benn tiyaaba in ajree déet sama fay illaa ala rabbil alamin lu mu nekk ci borom mbindee fi mm-hmm. yàlla rek moo may fay fattaqullaa ragal leen yàlla waate woon topp leen ma xaaloo wax na nañu nuuminu ma ndax dañu dëggal lakka ñeel la ndax da ngaa bëgg ñu dëggal sa wax ji wa tabaakatu topp na la al arsu doona way suufe ndax da ngaa yaakaar ne dañ la gëm ne yonentu yàlla nga teew ñu la topp mooy ñu nit ñu xeebu ñi xamu leen dara melu leen nenn ngeen ne nañ leen topp qaala mu ne wa maa ilmi ana luy sama xam-xam bi maa kaanu ci dañuy nekk yaamaloon di di ko jëf de ñoom la ñu jëf sama yoon nekku ci xaw ma ko rek laa wax de la ma xam ci ñoom mooy topp nañ ma gëm nañ ma kon mënu ma leen a dàq ñu ne saa bu mu rek le ilaa ala rabbi lu may mu nekk sama borom yàllaa leen rek le su dañ leen fay law tashuruna su ngeen xamoon rek laa wax de wa maa ana déet man bi taari dil mu'minina di dàq way gëm in ana dis man illaa nazir lu mu aji waare mu binun ba aji leer ak waare man dama leen waar rek waaye nag du ma ku gëm yàlla naan gëmut xaaloo ñu ne ko leen leen tënte yi boo doytul wut bàyyi li ngay wax yaa nu yow nu da nga nekk meneen marju mene suñu jam ñu ne ko gis nga sa wax ji boo ko bàyyi wut dañ la jam xeer wala ñu saaga la mm, saaga yu metti ŋàññi la dëgër bopp yàgg na fi mm-hmm. moo tax muñ leen rek yéen ñuy xoote ci yàlla xaala wax na moom noonu ne rabbi yow sama borom inna qawmi naka sama nit kasabuuni weddi nañ ma faftax yàlla nga ubbi bayni sama diggante wa baynahum ak seen diggante fatan ak ubbi yàlla nga ubbee yàlla nga atte maanaam sama diggante ñoom war a yàlla nga ma musal woon may yaa ngi ñaan nag ma mu mu ci way gëmi de yàlla nga atte sama diggante ak ñoom loolu mooy yàlla nga ubbi sama diggante ak ñoom nga ma musal ak mboolem ñu gëm fan jéynaaw ñu musal ko maaw ak ñaan ak moom fil fulki sa gaal ga almasuni bari bañ feesale ko nit ak ndundat ak picc de waaw gaal ga ko fees suma raq naaw waaw topp suma raq naa topp ñu labal baado gannaaw buñu ñu leen musalee albaaqi na ña des te moo di de ñoom yàlla labal na leen inna fi zalika nekk nekk si wala aayatun kawteef guy tegtale kàttu nag yàlla wa maa kaana nekkut aksarum ñoo ëpp ci ñoom mu'miniin di way gëm way na rabbaka nekk sa borom la moom al azizu mu aji tedd arrahim mu aji yërëmaane mu aji yërëme loolu la yàlla jàngale ci soir nu ci soratu sonra kon yàlla jàngale na soir nu ci ay ay laaye yu bokkul rek laa wax de dégg واحنا تمشي سودان كابوت نو لا قدر صلى الله نو نو الى قوم جم نتم فلبس مسافرين سنو الف سنه جنيات الا خمسين عام لما يجرون فكات فاقصوا مجابون الطوفان ومنما وهم نيوم ظالمون ويتون لنده فانجي ناو ني مسلكو واساب السفن رقني نكون تقال غواجان الله نجرفكو آية المري كاوتيف للعالمين نو غوغو يالا نتلنا yónni nañ ko caaw nitam mu sax fa lu mat junne at juróom fukki at xoo gëmuñ yàlla andi ndox rek labal leen musal nu ak ñaanoon ak moom gaal ga kooku ñëw na si sóor daan këbor rek laa de waxaal woon na taala kawe na fii surati saafaati ci saaru saafaat ne wala xadaar naa yónni nañu nuuxan nu ilaa qawmi jëm ci wala xat naa daa naa woo nañ nuu an nuu fële nee ma baax na wala xat naa daa naa woo nañu nuu an nuu fële nee ma baax na al mujiboona way way nangu ñaane de yonent yàlla nuu woo nañu daldi ñu ñaan waaye ñu nangul ko ñaan rek laa de kay nangul yàlla ñaan kay nangu yonent yàlla nuu ñaan nag moo di yàlla yàlla ne ñun ñu nangu ñaan ñoo baax wana jëy naaw nu xoogi mooy lan mooy wax na ne ini maxlubun fantasir yàlla noot nañ ma yàlla nga ma dimbale loolu la yonent yàlla nu waxoon de yàlla di ko dimbale wana jëy naaw musal nañ ko ahlu ak ñooñam mel kar bi si njàqare alazim ba mooy lab ga wajan laa ñu def zuriyatoon njabootam hum ñoom albaaxi na ñu la way des mooy njabootam rek ñoo des moo tax tey kuy mindeef rek di sëtam yonent mhm. ndax yonent yàlla mooy sa ñetti doom la saam moo jur arab moo jur waa fursu ak ak waa ruum xaam moo jur nit ñu ñuul ñi yaafis moo jur waa turki de waaw ak waaw yaa jooj ak maa jooj ak ñu nekkee foofu ñëpp kon njabootu yonent ci yàlla nu rek ñoo fi des wa tarak naa desal nañu àll ci moom tagg wa rafet fi laa xëy ci way mujj yi yonent di ko tagg ñëpp di ko tagg moom yonent ci yàlla nu ba bis salaamun jàmm ju jugee ci ñun yàlla alaa noonu yàlla nekk ci nuu fil aalamiina ci mbindee fi innaa naka ñun kazaalika comme nuñ fayee nuwoog ñu ànd ak moom najzi la ñuy fayee al muus nii na way rafetal yi muy noonu képp ku rafetal rek la yàlla defal yonent yàlla nuu dana la ko defal innoo naka moom mi ne baali naa mu bokk ci ñu jaam yi al mu'miniina ñu wéy gëm ti yonent yàlla nuu ci ñu gëmoon la bokk suma ma raq naa topp ñu lamal al aaxiriina ñeneen ña laa wax de ña nga xam ne gëmu ñoon te mooy xéeféer yi ñooñu moom yàlla lawal na leen daal di leen alak wa qaala wa taala yàlla mu kawe mi fi sóori iqtaraba si saaru iqtaraba foofu it yàlla nettali waat na fa iswaaru nuhu alayhi salaam ne kadabat wedd na yàlla قبلهم ذك وقريش قوم نو نتنويده فكذب ودنن عبد الناس مي جامبت موينو وقالوا ني من نون دفلا وذجر وا ني گدكو ساغو ساغو كو وخو لو ني ديسان لك لا وخدي وا متين ولي الله من لن وا لو ما دغ سن بوب ولا سن سيرين فدا مو دال دي ورب بو برموم اني ني من مغلوب كن نوت لا فانتظر يالله ما ديمبل نونا يالله نوت نن ما حمتو ما فخ ديمبل مام ba fa tax naa ñu daal di ubbi abwaaba samaayin bunti asamaan bi maayin ci ndox mu naa miin baa ndox may wàcc rek ba fa jar naa ñu balal alaada suuf uyuunan mu di sewnde faltaqal maahu waaw ndox mi daal di daje muy ndoxum asamaan ak ndoxum suuf ala amrin ci am mbir moo xam ne nii xat qudira dogal nañ ko ci azal mooy ñii foofu ñu xalku rek laa wax de ñaari ndox yi dajee ñu daal di xalku dégg nga waamal laaw ñu hen moom nu ala zaati alwaahin ci aliwa jey boromi ci gaal gay boromi aliwa waaw wa dusri na gay waaw takkaare laawale <clears throat> dégg nga gaal gaa ngi am ay aliwa ak ay ko defaree mooy ponteeg yu demee noonu yi nga xam ne ni moo boole aliwa ji ba nekk benn moo di dusur de te juree ma ngay daw bi en yu naa suñuy gis ak suñuy wëttu jazaan mu dik fay liman ñeel koo xam ne kaana nekkoon na ku firi di weddi yàlla dégg nga li man ko xam ne kaana nekkoon na ku firi ñu di ko weddi de loo dégg nga jazaan murik fay maanaam murik ndimbal yàlla fayee loolu yonent yàlla noo miñ weddi mooy fayee ko rek defaral ko gaal gu dëgër ah, dugal ko ca daal di alak nga xam ne nii waaw ñoo ko weddi de wala jazaan murik fay li man kaana ñeel ka nekk na kafara di weddi su boobaa mooy xéeféer yi ñoom loolu lañ leen fayee wala xa tarak naa desal nañ ah, desal nañ kawteef googu aayatan mu di mu di eh, mu di xalam faal min mu dakri ndax am na kuy waaru rek ba waaru ci loolu balu daloon noo ki nitam yi li daloon nitu nu yi ko we doon du ko dal yàlla bana fi di ndax nit ñi xalam ci bu koy ba kaana naka la nekkee azaabi sama mbugal wa nuzuri ak sama waare waaw foofu laaj la goo xam ne nii waaw daf laa bëgg woon rek ne la mbugalam yàlla lu màgg la kon na ngeen ko moytu wala qad yassarnaa yombalal alquran alquran li zikri ngir mokkal waaw ak waaru ci faa min mu dakkirin da am na kuy waaru de alquran ak noonu yàlla yombal na ko ngir nit ñi mën koo jàng ko man ce waaroo ndax am na ñuy dem nag nag dem jàngi alquran ba mokkal ko daal di ci waaru di ci waaru nit ñi de saar yooyu yëpp <clears throat> yàlla wax na ko ci alquran di jàngale histoire yonent yàlla noo wax na it ci suuratu nuu saar lëmb la di ci jàngale histoire yonent yàlla nuu de nay naar sal naa yónni nañ nu an nuu ilaa xaw ma jëm si nitam anandir ne waaral xaw ma ko min xam an yaatihim njëkk mu leen dikkal azaabun mbugal aliimun daañu méttal ci àddina ak laaxira noonu ñu ne ko waaral soo nit waaw buñ gëmut mbugal mu métti na leen dikkal rek laa wax de xaala wax na yaa qawmi yéen sama nit inni naka man lakum ñeel naa leen nazirun di waare kan mubiin baa ji leer waare an ibudu na ngeen jaamu laa yàlla wattaqu te ngeen ragal ko waate woon te topp ma kon topp yonentu moom ci la bokk rek laa de waaw yaxfir dana jégal lakum ñeel leen min zunubikum seen borom wa yaaxirkum dana mu ilaa ajalin ba ci ab diin musamman buñ doon te mooy di rek dee rek laa wax de waaw dégg nga inna ajala laa ye naka di rek yàlla isa jaanim dikk na laa yoo xaru duñ ko yéexee law kuntum na nekk ngeen taalamoon di xam loolu su ngeen xamoon loolu da ngeen gëm xam ne dee foo mu ñëw te dee mbugal rek boo gëmutoon rek laa wax de wax na rabbi yow sama borom moom nu ne nii naka man daawatu xoonaa xaw muy sama nit lay lan guddi woon aara nag bëccëg xoonaa leen jamono bu ne faram yasirum lu may daw rek waaw walis man ku ma daawatuum saa yu mu leen xooyee li tax fi rek nga jéggal la moom ñee leen jaaloo def nañu asaay bi moom seen i baaraam fi azaan mi i nopp ngir buñ dégg sax lu may wax su ma leen xoo rek ñu ngay fatt seen nopp yi ngir bañ a déglu wastax sow ñi muur si yaa seeni moom yére maanaam ñu muur seen i bopp rek laa wax de muuroo seen i yére mooy ñu muur seen bopp ba bëgguñ maa xool waasaru ñu nuur seen i xéeféer mooy ñu sax ca wastakbaru ñu reylu istikbaaran ak reylu su may nii topp man daawatu waxoo naa leen jihaaran ci biral xoo leen ca kaw su may nii nag man aarantu feeñal naa lahum ñeel leen sama kaddu waasaratu yelu naa lahum ñeel leen israaran ak yelu xoo naa leen ci bitti xoo leen ci biir fa qultu ma ne sax faroo jéegul leen rabbakum seen borom te ngeen bàyyi bokkaale gi ngeen nekkee tuub dellu ci yàlla de inoo nag moom kaana nekk na xafaaran daa ji jégal jaamam yursul dana wàcc asama asamaan waaw aleykum ci yéen midraaran mu aji dooteeku su ngeen tuubee yàlla wàcc asamaan ndox mi di taw rek ndax jamono boobu ndox amutoon wayum dir kum dana mu tëbb leen bam waa leen ci na boobu leen ak doom way jàll dana mu def la kum ñeel leen jannaatin waaw yàlla jana way jàll dana def la kum ñeel leen naxaaran ay sewnde yu daw ci aljana rek laa wax de maa la du ngeen yaakaar li laay ñeel yàlla ak mu musal rek laa wax de dégg nga rek laa wax de waa ndax du ngeen def yàlla rek muy koo xam ni moo leen musal dégg nga eh, eh, ngeen gëm ko rek laa wax de waxat xalaqakum te bind na leen atwaaran ci ay waaw jamono rek la wax de <coughs> dégg nga yàlla bind na leen ci ay atwaar mooy nekk toqam mënuyu lu mu deret ba mu jeex alam taraw kanaa gisu leen kay fa xalaqa naka la bindee waaw allah yàlla waaw sama samawaatin juróom ñaari asamaan tibaaxan yu tegtaloo wajaal mu defal xamara weer yi fii na si ñoom waaw mm, dégg nga nuuran mu di leer wa jaala mu a samsi jant bi siraajan mu di lamp bi aji leeral wallaahu yàlla anbatakum bind na leen min ardi si suuf rek laa wax de waaw ndax seen baay adama fa la jógee nabaatan ak bind rek laa wax de summa yuidukum topp mu delloo leen fiyaa ci moom wa yuxrijukum mu génne leen pour dekkil leen ixraajan ak dekkil wallaahu yàlla jaala def na lakum ñeen leen arda suuf bisaatan mu di lay di tasluku ngi ngeen soowu minaa ci moom subalan ay yoon waaw fijaajan yu de defal leen suuf muy seen lay taay mbedd yu yaatu xaala wax nu nu rabbi sama borom indoom naka ñooma saw nii mooy lañ ma wata moom topp nañ waaw <laughs> dégg nga man ka nga xam ne la mesiru dolliwul ko maalu wàllam doomam illaa xasaara lu mooy perte rek laa de mu ne yàlla dégg nga mu mooy nañ ma topp waaw ñoo xam ne ni seen alal ak seen doom dégg perte rek da leen yokku wa makaru ñu pexe ñoom njiit ya dégg nga makaran pexe ku baaran yu mag waaw njiit yi ñu topp ay pexe rek la ñuy def waxaala wax na waaw dégg nga waxaalu ñu wax waa euh, ñoom njiit yooyu ne laa tasuruna bu leen bàyyi aayaatukum seen yàlla yi wala tasuruna bu leen bàyyi waddan wadd wala suwa du caageen suwa wala yaxuusa du caageen yaxuusa wa yaxuqa yaxuqa wa nasra ak nasra ñooy turu xërëm yi waxat adda loolu réeral nañ kasiran lu bëri ci nit ñi rek laa wax de waaw maanaam jaamu ga ñuy jaamu xërëm réeral ci ñu bëri wala tasit du doole zaalimiin tooñkat yi illaa dalaala moom jaamu xërëm rek laa wax de dégg yàlla nag wax nu ne ko duñ la gëm mu ne mi ma xatiyaatiim ci seen ñaawteef yooyu uxriqoo ci lañ leen labale foo du xuloo ñu dugal leen naaran safara faramee ji doo amuñ lawum ñeen leen min duni laay ci dul yàlla ansaara ndimbal amul kenn ku leen dimbal dul yàlla rek de waxaal wax nu nu rabbi sama borom laa tasar bul bàyyi laa di suuf mel kaafirin ci day yaaran aji wàcc kër bul bàyyi kenn ci ñoom kuy wàcc ci ab kër rek laa wax de innaka naka yow intazarum nem bàyyi nga leen di duloo ñu réerane ba dëkk sa jàmm waaye du duñ jur illaa fajiran lu may kàccoor kafaaran bàyyi weddi boo leen fi bàyyi ay kàccoor rek la ñuy jur rabbi yow sama borom ixfir jégal lii ñeen mool waal de sama ñaar baay jur wala man daxalaa ku dugg baytee sama kër waaw muminan di gëm yàlla wala mumineen jégal ñu way gëm yu góor yi wala muminaat ak way gëm yu jigéen ba a penc wala tasiri tabul dolli azaalimina illaa tabaaran lu mooy alkaane dégg nga rek laa wax de bu leen dolli lu mooy alkaane bu ko defee nag yàlla daal di xalak xéeféeri ñoom ñëpp rek ñu daal di ñu daal di dee lii lépp ci soir yonent ci yàlla nuuh alayhi salaam yàlla nett nañu ko ci alquran in uridu lislam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa